bisimil ilaay ci barkeb say ci faddilu mi buru yàlla doldinoo ay maqaama yàllaw salaamaaleykum nga xamante ni yéen a ngi bàyyi xel saa su ci biir jotaayu xam-xam bi xam ne moom lañ leen faral di dikkal saa su ñi nga maan mbégte bu baax baax dellu si waat tey ci beneen jotaay feggo waat itam ak ki nga xamante ni saa su yéen a tàmm di ko gis ci écran yi macha allah di sëriñ Cheikh Ibrahima Ndiaye alxuraan gannaaw bi xamante ni màggal géeg yëpp jàll na wax dëgg yàlla ñu siyaare waat ndokkeel ak askanu Sénégal gépp itam moom lañ fas yéene àndalaat tey ñu ñuy def rek mooy daal di koy nuyu siyaare ko waaye itam daal di koy dalalaat ci biir jotaay bi di ko wax ni rek sëñ Cheikh Ibrahima Ndiaye salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bay taala ñu ngi lay fay nuyoo di la ndokkale ci màggal gi ñu génn hmm. di ci siyaar mbooleem taalibe yi nga xam ni joxe nañ digal li hmm. di ci am ak sant yàlla gu sax hmm. di ci am ak sant sëriñ bi ñu ko jagleel bi barakati rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam macha allah jërëjëf sëriñ Cheikh Ibrahima Ndiaye alxuraan ci nuyoo bu am solo boobu ñaan itam yàlla sama borom nangu lépp te boole ñu ko ci dara ji yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wa salaam sëñ Cheikh gannaaw ni nga ko waxee rek gannaaw bi ñu jógee ci xew-xew yëpp wax dëgg yàlla euh, fi mu du ñu mën a def lu dul rek euh, ñi nga xamante ni mooy soppe yeeg am di jàmm yi saa su ñu ngi ñu ngi ñu ngi topp jotaay bi di yónnee seen i question di seen laaj waaye di yónnee tam seen i cant ndax daanaka lu mat fukki nit ak lu tox fi mu ne yoo xam ne kenn ne yónnee na yónnee na euh, daanaka santam ci yow xam naa du ñàkk ci jeexitalu jotaay bi incha allah dinañ dinañ leen ci tudd waaye daal bokk na ci li nga xamante ni mooy leen gënoon bëgg a nga indil leen ko tey gannaaw turu yàlla yi nga xam ne jamono yëpp ci loolu nga tënk téere waxtaan mooy tey jii sëriñ bi nga xam ne moo war a ñaan ci wàllu ismulaahil asam wan melokaan la war a melowoo ba mën a taxaw doomu aadama ba mënu mënu mucc ci ay soxlaam baataala tey laaj bi ñu indi laaj ko te mooy sëriñ bi ñaan ci ismulaahil azam hmm. lan mooy melokaanam hmm. loolu mooy laaj bi ismullahil azam nag soo ko déggee rek mooy turu yàlla képp koo xam ni dangay jëfandikoo turu yàlla moom la ñuy woowee sëriñ boo xam ni day yëngu ci ismullahil azam sëriñ boobu nag dafa am ay xam-xam yoo xam ne dafa war a daje ci moom su ci njëkk mooy dañ koo war defar mm-hmm. dañ ko war a tarbiya defar ko ba xamal ko boroomam gannaaw suñ ko xamalee boroomam mm-hmm. dañ ko war a ubbi mooy dafa war a am fatxul akbar buñ lay tarbiya dañ lay teg ci aw yoon boole laag ismu laahil ahzam boo xam ni moo lay yóbbu waaye boo àggee fa nga jëm dangay ngay am ak ubbeeku ci yàlla loolu moom la ñuy wax fatxul akbar waaye du am ak yow foofu de boo fa jógee dañ lay jëme ci lu gën a kawe ubbeeku mooy dañ lay naanal ci géejug maxrifatu billaahi su ko defee nag boo ca naanee ba mandi ci ngay doon aarifuna billahi jamono boo demee doonee aarif nag nga xam ni melo yi suñu boroom yi yu bari daje na ci yow xam-xami góor yàlla yi yu bari daje na ci yow li tax ñuy wax al awliyaa te mooy nitu yàlla daje na ci yow su boobaa nag sañ ngaa jël soxlab jaam jëme ko ci suñ boroom waaye yooyu boo ci réussir agul xamagoo yooyu xàmmeegoo yooyu étape yooyu yéegagoo ba jóge ci pour nga réussir ci soxlab nit du sotti kon sëriñ bi nga xam ni moo sañ a ñaanal moroomu jaamam ni moom mm. mooy sëriñ bi nga xam ni xam na suñ boroom ci xàmmeekaay yi xam-xam indi ak xàmmeekaay yi ismulaahil ahzam indi su ko defee nag soo àggee ba foofu am na yeneen étape yu ëpp doole yooyu comme étape yi ñu toll nga xam ni ñun nekk nañ li ñuy wax kaamilul irfaani ci ismulaahil ahzam nga xam ne yow mi nga xam ni yor nga tur am ci problème mën nañ la ci gindi dimbil la ci yow mi nga xam ni am nga ci ab tawat ju la ci dal ci liggéey boo doon liggéey tur la mën nañ la cee orienté yennil la ko loolu waxuma ñuy ñaanlu de waaye ñi liggéey tur yàlla waaw mm-hmm. maanaam boo boo boo amee fatxu dafa am étape bu gën a garaaw fatxu te mooy kasfu man kasfu am naa ko ci ismillah alazam bépp jaam bu mu mën a doon yàlla bind la bindoo sa bopp bu ma nee la jàkk xam li ne ci yow jëfewu ma bépp jaam nag kenn da cee génnul bépp jaam bu yàlla sàkk nga jàkkaarloog man su dee li ma suñ borom mayoon dindeegu ko su ma nee la jàkk xam naa fi nga jëm xam naa lay orienté xam naa lay dimbali kooku nag ab tolluwaay la mm-hmm. boo xasee ba toll foofu xam-xamu lasraar yii ngay dégg ñu koy wax ci réew mi day ndaw ci yow ndax xam-xam boobu ay orientation rek la wa waaw ay tegtal la waaye yóbbul kenn fa mbir ma nekk waaw dañoo wax ni taatu cin li hmm. bala ngaa xam la ca ne hmm. faw nga yekkali ci kaw yaa ngi dégg xam-xam ba ca biir nag hmm. ku munta nuuru mënoo ndox ah waaye sëñ bi doo ci wax lu leer de dégg wax bi waaw kon li muy laaj mooy kiy orienté jaam ñi ban dayoo la war a toll mooy faw mu doon kaamilul arfaan koo xam ne peeg na xam-xam yi laaj loolu door a mën a orienté nit ñi bàyyi taala jërëjëf Serigne Cheikh Ibrahima Ndiaye alxuraan ci leeral bu am solo bi man dugalaat na ma ci beneen dimension boo xamante ni xam naa ni balaa yàgg man danaa ko tàmbalee fi mu toll nii sax ñëw di jël si ay tur di kii ndax fi mu ne fi ngay dugg dafa neex parce que euh, mooy li olof di wax naan nit li mu maîtriser bokkul ak li nga xam ne maîtriser wu ko gars yi dañuy toog di wax nii wax mais li ngay wax dafa leer leer boo xam ne ngay joxe ay tegtal te def naa loolu la jaam yàlla yi itteewoo macha allah rabbi yal na yàlla xeeb doole waaye itam bëggoon nañ xam tam tey jii naka la sëriñ bi comme li nga wax sànq parce que nga nga nee nga fi mu toll li la yàlla mayoon bu fekkee jëlagu ko doomu aadama boo ni jàkk loo bëgg a xam ci moom di nga ko xam fu mu jëm di nga ko xam mais tey jii risque bi dafa bëri ci réew mi ak sëriñ sëriñ sëriñ sëriñ ba tax na nit ñi gëmatuñu kenn nit loolu lan la doon li nga mën a tax nga mën a jàkkaarloog nit ki xam ay yitteem ba mën koo saafara dimbali ko. waaw xam nga mën laa laata ma dimbali kenn dama dimbali sama bopp. loolu <laughs> dimbali sama bopp weesuwul. Hmm. ñi yàlla solo woon yónni leen ci àdduna. Hmm. lum gàtt gàtt. man li may néew néewi at juróom-ñeenti xëbru yonent tiim naa ko benn bu ne ma ñaan fa samay ajo te yooyu yëpp leer na la ñeen fukki xëbri waliyu ak benn yoo xam ni benn du ci réewum senegal tiim naa ko benn bu ne ma ñaan fa sama ajo dox fa samay bagaas tukki naa ci 33 pays yu bokkul yoo xam ne benn bu ci nekk tur yàlla laa fay gëstu kon man dama dimbalu sama bopp ba pare di door a jëm ci mbirum jaam ñi yaa ngi dégg wëndeelu gu metti googu moo doon wëndeelu nag ci àdduna bi mhm. lu ne ma jéem a xam ca fond ba la ca ne mhm. moo may yàlla dimbali ma ci wàllu ismilal ahzam ma man cee faj doomu aajoy doomu aadama waaye man cee faj sama aajoy bopp mhm. yaa ngi dégg barki démb dafa am benn waay bu ma woo réewum Espagne am lu may xolloo bi ma ko xoolee ba pare dañ ma sëñ bi boo ma xamoon wala ma xam ku xam ni xam na la dama naa la man dañ ma dañ laa tegal sama dund nett la lépp waaye comme man maa la woo te xam ma kenn ku la xam mm-hmm. lu ma yémee nii ci seet mosuma ko gis ma ni ko man seetalu ma la damaa jàkkaarloo yow di la wax sa bopp <laughs> <laughs> xam nga seet mooy loo gisul mm-hmm. man du wax ci lu ma gisul <laughs> dégg nga wax bertal waaw seet mooy loo gisul di ko seet mm-hmm. ma ni ko man seetaluma la dama laa jàkkaarloo yow di la wax sa bopp mm-hmm. loolu nag mbirum bàttin la mënoo mm-hmm. ñaan yàlla te jigewoo yàlla yaa ngi dégg mënoo ñaan yàlla te xamoo yàlla yàlla nag ay caaxaan da koo xamle wul suñ borom dafa nekk moom koo xam ne dafa am yoon wu la fay jëme boo xasee ba àgg benn yoon rek ngay àgg ci la amatul ñaar amatul ñett yaa ngi dégg mm-hmm. jaam ñi daa am lu la suñ borom di yenkañee ci siini mbir boole laag loola ngir ñoom mm-hmm. lool soo ko xasee am boo sàgganul dootoo ko ñàkk mm-hmm. yaa ngi dégg loolu daal laa la mën a xamal ci loolu ngay laaj mbirum jaam ñi bala nga cee jëm day fekk nga nopp sa bopp Mm-hmm. jërëjëf sëriñ Cheikh Ibrahima Ndiaye alxuraan am na solo te leerati na wax dëgg yàlla macha allah bokk na ci tamit fi ñi coowal rab mel ci réew mi mais tey lan mooy tegtalu sëriñ bi war a dimbali ki nga xam ne ay rab da koo sonal wala mu ne ci xatu rab ak yooyu ñuy wax waaw ba nii nii nii nii nii démb rey naa ñaari nag yoo xam ne mbirum rab a tax mm-hmm. ñi ma ko rey la ngi fii ci yoof mm-hmm. waaw parce nit ki bu dee dafa signé benn pacte wala mu am yoo xam ni ay maamam a ko ca dugaloon mu bëgg caa génn te xamul wan yoon lañ ko ca jaarale jaarale woon ba dugal ko ca day indi jafe-jafe ci moom te Sénégal daa am ñoo xam ni dañoo am ay rabi cosaan mooy ñoo xam ni seeni maam da daan ndëpp ñii seen maam yorooni xàmb ñii seen maam yi signé ay pacte ñii seen maam yi di ay saltige ñii seen maam yi di ay seddo ceddo di ay séeréer yoo xam ni dañoo yoroon yeneeni xam-xam yoo xam ni xam-xam yooyu ay collaboration lay doon ak junne yi yooyu nag soo ca bokkee mhm. judd rek bëgg a doon ab boy town nag nekk ndakaar gii di cakki-cakki ah junne moom bala nga mën a <laughs> gën problème ak moom fekk nga nga mel ni nga mel ba pare yaa ngi dégg mhm. yooyu nag dafa am yoo xamante ni si nii bu xasee ba nit ki duggal boppam foofu boo ko ca bëggee génne faaw nga xam cosaanul loola loolu moo sabab faj rab jafe ci réew mi ndax ñu bari dañoo jàpp ni kamaataraa mooy faj te kamaataraa waxtaanuñ waxtaane rek bind ko la munta jëriñ nit dara kamaataraa mooy loo xam ni danga fekk sa baay faatu bind ko ci aw fooy nga bëgg ko doxal te jaaroo fi mu jaar xam-xam boobu la waa Sénégal am di <laughs> luñ gis ci fooy li sama maamu ko def nee na boo defee nii boo defee nii boo defee nii da gis koy faj rab ñebbe saraxum ñebbeeg saraxum nàngam ak saraxum nàngam loolu lu man loolu na ci àll bi ni gàññ rab yi di ko gis lenn lu ne dafa am usul mooy dafa am lu koy luy xam-xam buy wane loola xam-xam bu lay tax a mën a dox ca loola rab yi bala ngaa mën a xam exactement ñoom yan catégorie lañ dangay ngay peeg mulk bi mulk bi nag boo ko peekee peegee ci ngay mën a jëflante ak rab yi ci ismilal azam ñu lay déggal ilaa bi isnillahi ci ndégalu yàlla bay taala dégg nga wax be waaw boo xamul lan mooy mulk suñ borom dafa bind nit ñi def leen kuréel bind junne yi ñu wër nit ñi bind malaayika yi ñu wër junne yi yooyu soo amul xam-xamub lu nga xam dayob loola mën a jéggi loola àgg fa soxla sa nekk pour nga ñaanal nit mu réussir dina jafe de. ni sax dafa gën trop. waaw fi mu nii Sénégal tàllali loxo moo fi gën a yomb ñaan. Mm-hmm. tàllali loxo nañ jàng faatiha mm-hmm. moo fi gën a yomb ñaan. la baaba Lamine Ñas waxoon ni. man ñu jégglu laa fi ñu mën a jégglu laa fi gis waaye ku mën a tuub gis ko fi. <laughs> <laughs> ni nga wax baatin boobu <laughs> loolu yàllaa ko wax. ñu mën a jéggalu daal laa gis fi ñu ñu mën a jéggalu laa gis fii ci réew mi waaye ku mën a tuub gisuma ko fi. ku ñuy wax Baba lamin Niass ca Medina Baye doom Baye Niass. Mm-hmm. laa dégg mu wax ko keroog bi mu ko waxee sama adduna daa tukki man. ndax damaa xam fa muy waxee. Mm-hmm. ñu mën a jéggalu suñu borom nee na jéggule mm-hmm. waaye tuub. de gisuma ko man ci réew mi. tuub xanaa xamoon ne mooy jamono bi ngay tuubee li ngay tuub da wax ni yàlla dootoo defati beneen bàkkaar ci li des sa dund te bàyyi naa ko fi may tuubee kan moo man loolu génneel kenn ci réew mi xam nga ñëpp waaw jéggalu nag mooy istixfaar rek la ma defoon démb maa ngi koy jéggalu la ma defoon tey maa ngi koy jéggalu <laughs> waaye ku dootul def bàkkaar fii <laughs> xamu ko ci jaam ñi moo tax ñaan wàllu yàlla la mm-hmm. ñi xam seen borom ñoo ko man mm-hmm. bu caaxaan yi jeexee mm-hmm. ñu jublu ci dëgg baytaal ñaan lu yomb waxtaan nag lu yomb la waaye ñaan lu yomb de boo gisee tey melokaan wi ngeen ma fekkee dama nekk ci xaal dama nekk ci ay mbir te man nee la lépp loo dégg aw tur yàlla génn ci mm-hmm. alquran génn ci mm-hmm. doom fa seen man ci ismilaahil ahzam laay yëngu mm-hmm. sarax nag dafa munta ñàkk ci nit fi mu ne am néeg soo ko defaree ba mu jekk nga bëgg faa dugg di fa jëfandiku fu mu toll te amul làmp day am jafe-jafe sarax mooy làmp bi leeral mbirum mbirum sëriñ sëriñ boo gis maîtriser wul mbirum sarax amu ci xam-xam ngir mu ñaan lu sotti lu jafe lay doon ndax leen lu nekk nag dafa am lu ci suñ borom branche la loo xam ne loolu day ànd ak moom ñaan yàlla dafa ànd ak sarax faw nga xam sarax xam sarax nu muy demee xam kenn ku nekk lan mooy saraxam xam ki nga xam ne dafa nekk ci njàqare nan nga koy ñaanale ak lan nga koy sarxeel xam ki nga xam ne daa tawat tawati feebar lan nga koy ñaanalee ak nan nga koy sarxeel xam ki nga xam ni cat a ko jàpp nan nga koy ñaanalee ak lan nga koy sarxeel xam ñi nga xamante ni wàllu wërsëg lañ amul dañoo néew wërsëg nan nga leen di ñaanalee ak lan nga leen di sarxeel yii boo ko munta séparé amoo ci benn xam-xam mënoo ñaan tey ci Rwanda am na ku ma fa woo di ma ñaanloo moom problème am mooy daa tëjoo tëjoo tëju ba ma mënatu faa am dara te dafa tijjeeku woon lool bi ma woowee ma ne ko man mënumaa wax ci mbirum jaam te xam ma nu mu demee baal ma xool say mbir waaw bi ma yëngalee course gi tuuti mu wootewaat ma woo ma wuyu ko ma ne ko saay naa ma ne ko am nga soxna Sénégal fii mu ne waaw ma ne ko réew moomu am nga fi soxna mu ne déedéet ma ne ko baal di fi mooy yàlla mu ne sëñ bi ku fi njaalu ma ne ko dangay ngay njaalu wala njaaluwoo <laughs> foofu mujjee ngon maa ngi mus ci xale yi ma ne ko ñaar dërëm du la topp kooku looloo ko téye njaaloo kenn ku ne dafa am sababu li la dal lu la ko teg fi ne ko feebar sëriñ bi ci usuwulu li ko dal am na loo xam ni moom xam na ni lii moo ko teg feebar bi ki ñàkk am na loo xam ni yow sëriñ bi suñ borom ne la won ni lii moo ko teg tawat ji ñàkk ji kenn ku ne bu la woo la ñàndoo yow mi jige yàlla suñ borom dina la yekke ne loo lay xamal ni kii lii mooy fond problème am lii ko bloqué su boobaa nag loolee ngay tuubal suñ borom yow ba suñ borom jéggal ko ko su ko defee nag nga jublu ci ay mbiram ñaanal bari na ñoo xam ni li leen kale moom la sëriñ si munta dindi ba pare ñu leen di ñaanloo yaa ngi dégg mm-hmm. nit ki day am lu ko kale su dee ay bàkkaar la yow sëriñ bi ñaan bàkkaari jàmbur da war a xam nuñ koy tuubee waaye ku xamul sax yow say bàkkaar noo koy tuubee nooy tuubalee keneen yaa ngi dégg doomu aadama bu ne kenn ku ci ne ci nit ñi bëkkut ak moroomam sarax ni fan nit ñi wutee ñi di deenee ñi di juddoo nii ñi dooni góor ñi dooni jigéen noonu la yàlla jaxasee mbirum nit ñi yépp mu wutale ko kenn ku nekk nag dafa am système mu boppam est-ce que dégg bi mhm. doomu aadama bu ne dafa am système mu boppam boo bëggee lijjanti mbiri jàmm bi fow nga dugg ci système am xam lan mooy paanam <laughs> ba mënta dugg système bi de paan moom doo ko waaw des fois ma dépanne am ponkal muy salit ma ne ko déedéet dama maîtriser say bagage rek waaye fi ne lii nii mhm. jaaxaloon la ay at ma laal ko mhm. su la yàlla xamaloon loolu yow sa bopp di ko mën a dépendre sa bopp dégg nga bi naa la bàyyi nga continuer doon question incha euh, ko waxee rek mu mel ni tey moom da ngaa ne ci maanaam jotaay bi wane na ko waaye ci biir bi damaa gis ni fi ni daanaka arsenal bi dafa génn ndax gis naa kurus yi junni per yeeg téeméeri junni per yeeg ñi ngi tege waaye maa ngi gis xaatim yi ñi ngi tege ci wet maa ngi gis tam bouteille bool bocal boo xam ne xeetu parfum moom xam naa ne boo doon wër ci 68 ba tey jii moom xam naa ne ñàkkul ni mi ngi fi lii tam bëggoon naa ngeen di ma ci leer parce que gars yi dañuy wax ne Cheikh Ibrahima Ndiaye ni mu ñemee sarax te du saraxe lu ndaw man leen loolu question la dinaa ko ko ndaw. waaw weer wi ñu génn nii maa ngi ko doon wax démb rek bàyyi laat ñu hmm. ko man xaat sarax naa ci lu ëpp 9 millions. Hmm. nee la sarax mooy accompagner ñaan. Hmm. waaw yii muy wax arsenal. danga ma fekk ma nekkoon ci ay dog te man duma fi nekk di débranche la yooyu dama fi bàyyi bagage yi ñu waxtaan. <laughs> boo paree buñ paree ñu ñu ñu continuer. <laughs> yaa ngi dégg. Mm-hmm. parfum yi képp koo gis muy jëfandikoo tur yàlla. te miinul parfum. dese naa xam ne mu yor doon. yaa ngi dégg wax bi. képp koo gis muy jëfandikoo tur yàlla te miinul parfum yi ak cuuraay yi dese naa xam ndax dafa am lu ñuy wax ci biir liggéey bi ay raw xaan kenn ku ci nekk te dafa am bëgg-bëggam boo koy neexalee moo waral ñu taal yenn cuuraay yu neex yi kon cuuraay yu dix millions yeeg neuf yooyu yëpp benn bu nekk dafa am lu ko tax a jóg te man catégorie yëpp lay liggéeyal mm-hmm. des fois ma yor fi projet yoo xamante ni si nii buñ la ko waxoon ak naan sëñ moom xanaa kon adduna bépp mën leen a dundal dafa ma ñaanal ponkal fu ne la nit ñi di jóge di ñëw ci réew mi dafa ma toog ay weer du ma sañoon sama téléphone bi ab Sénégal du ma ci woo ndax damay ne ci yeneen yoo xam ni moo ëpp importance wax naa ko fii Bassirou un jour ma ni ko sëriñ bu yor ñaari taalibe yoo xamante ni mën nañ ñoo sox faj soxlay atam euh, soxlay fukki atam mhm. moo gën sëriñ bu yor junniy taalibe yu ko mënta jëriñ ñaar dërëm waaw man ñëpp lay ñaanal waaye nag ah am na ci bagage yoo xam ni mm-hmm. du ma ko laalal n'importe quel mm-hmm. dégg mm-hmm. mag ak yëfi ku am xaalis ah, ñaar yëpp la ndax ka muy xam la mu ñaar ñaar yëpp boole ay naxante moo amul fii ci sama kër gi lenn daal laa xam mooy soxlas jaam tëwaguma dégg nga olof bi bu baax soxlas jàmm te wóoguma na nag ku ñaanal ba mu sotti billaahi ñaan nga maa ko ñaan sëriñ bu yanu lu mu xamul fu mu ko jëme daanu seeg moom fii ah sutura baax rek daal kon gaa yi gaa yi gaa ci coow lu bëri rek riir mi fi ne moom daanaka ñi ku ci jaaxle moom fi ne ci yow lay jubal si nga di ah man de xam naa ni bu la neexee nga nga wut say caméra surveillance def fi. <laughs> moom kay waaye lii ñëw fii ci ñoo xam ni dañoo ràngaase mbirum nit. xamuñu fuñ jëm moom. wër ci xarfa fuufa yi ba sonn xam du du lu mën a lijjanti. te kurus dong koy liggéey te liggéey yi ci war ñimiwuñ koo def ndax am na ñoo xam ni seen comportement moo leen mayul ñuy laal tur yàlla. tur yàlla daa mi sart. Mhm. sart yi boo ci munta nekkit doo ko laal mm-hmm. koo gis mu dof fii wala mu woye di taxawal ci mbedd mi mm-hmm. sart yi la nunguta respecté waaw moo raw fital bar fital boo ko yoree mm-hmm. daam foo koy tiire waaye boo ko tiiree sa ci sa waaj tey nag moom xam naa ne <laughs> sa émission bi daal émission mbir la daal. tolluwaay yee tolluwaay yee am solo loolu wax dëgg yàlla euh, sëñ Cheikh Ibrahima Ndiaye mais bokk na ci tam ba tey li ma doon bëgg a laaj nii xam naa ne day bokk ci suñu dernière question yi ndax waxtu bi fi mu daanaka mu ngi njëkkante ak euh, yaa ngi koy wax sànq parfum buy jar wax nga fi wax ñu fi cuuraay 3 millions kilo bi parfum wu 3 millions est-ce que yooyu tey jii ci biir réew mi nii fii ne yéen bu ngeen ko soxlaa ci biir réew mi ngeen koy jënd wala ngeen koy commandé mu jógee bitim réew. waaw. man dem naa fi turki jënd fa ay parfum jëndaale fa ay xeeti cuuraay yoo xam ne bi ma ñëwee wan naa la ko am na ci boo xam ne jigéen na man mi sax mën naa la ko wan man ay parfum yi kilifa laay jëfandikoo xam nga parfum bi jëndeewuma ko senegal fii ma ngi ko jëndee trois mille euros turki kii dafa am lu ko tax a jóg ngi koy dégg ay bagages ko tax a jóg waaw 3000 euros waaw moom la lii di jar am na parfum boo xam ni original bi moo ci jafe waaye waxoon naa képp koo xam ni parfum bi ñuy wax sil silsilatu ahmar am nga ko boo ñëwee ma jox la tur yàlla woo xamante ne si ni doo ko weer juróom-ñaari fan doon borom xaalis silsilatu ahmar original bi waaw képp koo xam ne am nga ko boo ñëwee fii ma jox la tur yàlla wi nga koy booleel di ko werd balaa mat juróom doon warum xaalis. yàlla rek lay di ko werd boole. doo sàcc doo fen doo def dara. rek ngi nar naa bëri ko lijjanti bi moo jafe waaye képp koo xam ni am nga ci boo xam ni original bi la. Mm-hmm. jox la tur yàlla woo xam ni moom ngay parfum woo rek sikkar ko juróom-ñaari fan rawaxaan defal la loo bëgg ba dara. coono àdduna yi da nga ciy génn te day continuer ndax dama lay jàngal tur wi wan la secret yi dimbalee la ko ngir yàlla. te du la fay dara. doo fay dara sëriñ si di naxaate gi sax mën nañ ko bàyyi te ñëw ma dimbali leen. kon défi ni sëñ bi sëriñ sëriñ si ay courtier lañu rek ndax ku ci jot mi fi nit daan ko jubal si ci ci ku mel ni yow. waaw loolu mooy li war ci xam-xam defuñu ko xam-xam dafa la jàng déjà jànguñu dara. xam-xam dafa laaj tarbiya xam yàlla dafa laaj coono ak sonn man mën naa laa wax ni la bàyyi taala toog na juróom-ñaari at yoo xam ne nelaw ma ci guddi loolu dafa bokk ak nelaw ba yeew rek bëgg a wax wax ji. diggante daaw jigéen ren dund nañ ci jamono boo xam ne wér nga ba say loxo am problème tawat say loxo. waaw loolu kenn nag li euh, nii benn wéru gu ci. ñoo fekki. yaa demoon naa ba. kuñ ma wax senegaal ni moo fi daq werd su ma demee ba ñu waxtaan asaka la yor ci li may werd demoon naa ba nit ñi yi ñuy wax ni ñoom moom la ñuy werd leen mu leen di dofloo moom laay commencé man bu may werd waaw man man dama xam ne nag la ma sëñ Tuubaa waxoon rek ni ma ni ma ni ma wooteel dinaa la wuy si boobu loola ndimbal loolaa fi nekk waaye man xam naa ni daal yoruma yëf yoo xam ni yu kii la parce que mënuma qualifier fenn ci turu yàlla moom boo ngeen ba ñëw ñu daan la jël bu rafet nga dellu leneen nag sama yoon nekku ci ndax du sama yëf waaye ismilal ansam ak wàllu leer ak wàllu suñu boroom wàllu salaatu ala nabi fu la neex nañ la fa ngembee boo dugg see fii ñu daan la jël bu rafet nga ñibbi baytaa la loolu de leer na moom wax dëgg nga wax bi ne te nag fu ne mën nañ faa ñaanee du nangu waaye sama kër gi ku fi dugg buñ la ñaan mu nangu waaw loolu yàlla ma ko dimbalee loolu yàlla ma ko dimbalee waaw wooteel dinañ la waaye nag wooteegu nag loolu dañ ma koo junjoon ak séegul xam na yow da ngaa yàgg ak man moo tax fi ne nit bu yàggee yow day nekk ab ab ab ku doy waar. <laughs> dégg nga wax. macha allah. baax na xam naa ni waxtu wi xat na xam naa ni nag Ali moom ci nga tool tey waaye moom xam naa bala ñoo takkalikoo dinga maye turu yàlla woo xam ne moom daal gars yi dinañ ko ndax gars yi namoon nañ la tam diiru safar geeg yëpp daanaka da nga cee xawoon na tëju ne ci ay mbir waaye daal ku ci mel ni sa sa sa say soppe ku ci mel ni Ahmadou Bamba Diop ku ci mel ni Assane Ndaw ku ci mel ni Mamadou Ndiaye waaye am nga sa sët bu ñuy wax soxnaa mi Mm-hmm. nuyu na la lu bëree bëri ñaanal la ñaan yoo xam ne daal. ne ko fay naa ko. ndeysaan moom daal doy na waar ku ñuy wax tam Cheikh Ibra Cheikh Ibrahima Thiaw moom itam ndeysaan amul jotaay boo xamante ni def nañ ko te commentaire ci moom ci boppam. mi ngi ma topp nañ di laaj sama numéro téléphone nee naa ko dugal naa ko ci commentaire bi waaye ne fa bàyyi numéro téléphone am man dinaa ko jokkoo moom. incha allah waaw nag ma nuyuwaaleel ku ñu wax Moustapha mu Moustapha caam waaw moom am maçon la. Mm-hmm. te tëdd ma. ñoo koy sëñ bee la mën a ñaanal mu woo ma di ma ñaan loo ma ni ko ah, wutal cent mille franc di ñëw te ñëw mhm. mu ñëw indi cinq cent mille <laughs> dégg wax bi ni ma man lii laa am yéene jox la ko nga may maan ma sant jaami yàlla yi mhm. ndax bu dee da nga yàlla di ko liggéey nit ñi ngay ñaanal dajale seen alal ba mat dix-neuf millions ñu jëndal la ci daamar joo xam ne mi ngi nii tege weex tal mm-hmm. loolu it bu seddul sama xol xanaa man duma nit yaa ngi dégg bi mm-hmm. loolu sax yéemu ma ndax am na yàlla dimbalee waaye nag mm-hmm. effort yañ def ba def ko moo tax ma war leen ko àggee ni xam naa ni yëg naa sama xol li ngeen ma defal te yàlla neen yàlla fay te it daamar ji sag daamar rek lay doon di ko defee yàlla nañ ko ràppal te mu indi jàmm ci ñun. yeneen ko uutu waaw loolaat maa ngi ciy sant maa ngi ciy gërëm. yal na yàlla xam dolli. waa turki. Mm-hmm. maa ngi leen di ñaanal bu baax. Mm-hmm. keroog indi lañ ma ci façon kaamil yoo xam ne dama ne man dong ko am ci réew mi. Mm-hmm. nee na ma nag alxuraan ji dégg ci yow. moo tax fu mu gën a rafetee dinañ ko fa jëndee indil la ko. benn nga ne sàmm mën na ma ko jox. ñu ñu ñu ñu ñu ñu wane ko. kon xam ne lii. teraanga la waaw. teranga yi yépp ñun ñëpp ñoo ko bokk yaa nga dégg waaw lii turki la jóge ca ñoom Ibrahima gis nga ko nii waaw yal na yàlla mottali yiw bi nga xamante ni si nii ñoom moom lañ jël def ko jox ñu ko muy teraanga ji di kaamil bu alquran yaa ngi dégg wax bi yal na yàlla mottali liggéey bi nga xam ne tamit dañ koy liggéey ci ndigalul yàlla te muy ñaan yàlla buñ ci tas yaakaaru kenn te itam képp koo xam ne jëmee na yaakaaram ci ñun yàlla na ko yàlla jiitu ci ñun ndax man xam naa ne duma ñaanal ku ma yàlla booleelul képp koo gis mu tàllal ma ay loxoom donte faatixa laa ko jàngal sax ci ndigalu yàlla laa ko jàng ndax li may def dama ci am ndigalu yàlla moo tax daanaka loolu daal laa mën a tënkee baytaala Euh, ismul azam bi nag du ko joxe tey hmm. ndax nit ñi dama leen di waajal ak xasida hmm. waaw dama leen di waajal ak xasida goo xam ni hmm. ci màggal gi laa ko joxe woon bëggoon a joxe far am tawat ba yàlla mujjul man ma teew ca màgget ga waaye bëggoon na maa def émission biir Touba joxe ko fa waaye comme amul màggaliwu ma ren gàmm gii di ñëw ci laay génn xasida gi joxe ko xasida gi nag jooni jooni laa ko laa laa ko tuddee man raw na sax jóoni jooni waaw waaye sëñ Tuubaa wax na ci loo xam ne mhm. laataa sëñ Tuubaa benn nopp déggul loolu laataa sëñ benn nopp gannaaw sëñ benn nopp du déggaat loolu sëñ Tuubaa yàlla defal na ko ci biir xasida gi mhm. defu ko ci jenn jëmm te gannaaw suñ tubaab di ko defaat ci jënn jëmm guddi gàmm joxal gars yi rendez-vous mu mm-hmm. dajee ci youtube bi mu tasaare xasida allah bu sore sëriñ Cheikh jërëjëf a Cheikh Ibrahima Ndiaye alxuraan ci waxtaan bu am solo bi macha allah ci leeral yi waaye tamit wax dëgg yàlla ci jàppandal gi ndax wax dëgg yàlla xam na ci yow wax dëgg yàlla te yaa ngi jël jot gi mu néew mu bëri fi mu ne daanaka jagleel ko askan bi kon sant la gërëm la bu baax a baax ñaanal la yàlla itam suñu borom mu dul laa taxaw dul guddal saw fan doo lay gën a wéral cër ndax jaami yàlla yi la yaakaar bëri na ñi la sopp bëri na ñi lay teewlu yi tamit bëri na lool macha allah rabbi wax dëgg yàlla kon dañuy ñaan sama borom bàyyi la fi ba ca kanam a kanam a kanam waaye tam sant bu baax a baax itam mbokk internet yi nga xamante ne saa su ne ñu ngi ñuy topp à travers ci biir jotaay ci biir YouTube bi ci biir télé yi ci biir média Sénégal bi ci biir réseaux sociaux yi rawatina ci page yi nga xamante ni mooy page Cheikh Ibrahima Ndiaye chaîne di Alxuraan TV ñoom it ñoo sant bu baax a baax macha allah di leen ñaanal kenn ku ci ne fa mu nekk lay bëggam ak mébétam ak yéenam yàlla na yàlla sama borom dul jeexal dara jàppandal lépp ci daraja yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam kon nag dégg ngeen ko Serigne Cheikh Ibrahima Ndiaye Alxuraan leen di jox ci guddi gàmmu nañ bëkkante kon ci biir réseaux sociaux yi incha allah ndax fa ñu ne xam naa ne ñun daal ñoo fay ne waaye daal danañ fexe ba buñ fa nekkee danañ fexe ba def ko direct incha allah rabbi ci biir youtube bi incha allah rabbi ci kàttanu yàlla ci barkeb say xi fàddilu mi buur yàlla doon li noo ay maqaama yàllaaw bisimil ilaahi ci barkeb say xi fàddilu mi buur yàlla doon noo